amul benn problème ma mën naa dugg ci kii mën naa dugg ci live bi bu dee ma ma duggee ci live bi doo dugal vidéo yi kay amul benn problème mais tamit dama lay wax leen rek lii nii amul la benn intérêt pour nga yàq sama àddina pour lii nii nii ku nekk di ma woo nii amul la benn intérêt Adamo jàpp ci rek yow tamit amul benn problème ma mën naa dugg ci kii mën naa dugg ci live bi bu dee ma ma duggee ci live bi doo dugal vidéo yi kay amul benn problème mais tamit dama lay wax leen rek lii nii amul la benn intérêt pour nga yàq sama àddina pour lii nii nii ku nekk di ma woo nii amul la benn intérêt moo jàpp ci rek yow tamit. xam naa tey moom nekkoo moom. waaw yàlla baax na. Hmm, yàlla baax na kay. léegi nday danoo bëgg nga ñëwal ñu affaire bi nu mu demee par point rek ñu dégg parce que ñëpp a ngi lay seetaan. affaire dama bëgg nga yokk sa baat. xam nga sama live de bu ma lay wax ngay waxee nii damay damay dugal yokkal sa baat. waaw pourtant maa ngi wax de. waaw waxal ca kaw. aja na waaw. loolu 2STV la ba mu ko yàgg bëgg. waaw xam. nga ne non dégguñu de 2STV. lañ xamante. yow ak Pawlish Mbaye waaw. ci laa déclaré sama amour ci moom. waaw. léegi nag après nag ba après ba ñu demee restaurant ba. Hmm. boobu nag lañ commencé xamante yooyu noonu. waaw ci laa ko doon dama ko doon seeti ko doon. seeti. waaw. léegi na après mu may proposé yooyu noonu looloo tax mun ma loolu dara nekku ci dañ koy def day yem ci suñu diggante man ak yow kase. ah loolu tax nga def ko. léegi ma def waaw ndax man dama ko bëgg looloo taxoon ma def loolu noonu. ok léegi yow léegi yow bëgg nit dina tax nga jox ko sa bopp rawatina ngay def lu bon di ko filmer. wala yow boobu xalaatoo ma. boobu moom moo ne ah moom mu ne la nga filmer ko. waaw moom mooy def loolu parce que amoo bopp Pawlish Mbaye loolu lay def pour yokk bësam moom noonu la mel loolu moo tax koy fekk ci loolu ndeyloo. man damaa juum rek. non loolu waroo ko def ndeyloo loo ngaa am ñu la bëgg man tey jii lu ne def nga ma ci Instagram bi ay ñoom moom sa piñ fii lan ma sot ay ñoom Dakar Buzz jël sa vidéo boo may xasee ñu dugal ko. pour pourtant loolu bu ma la ci xooloon tey jii tey yàq naa sa àdduna du dëgg parce que vidéo yi man maa ko yore ak yow ba tey nii nii envoyé ma ko kenn yónneewu ma ko sax Pawlish Mbaye te moom yëg na lépp te noppi non non dana jël de bu jëlul du sa ma de ndax yéen ñëpp ku nekkee dugg ci live bi non non dina jël téléphone am yow yaa dugg yow lu tax ngay def loolu ndey loolu tax nga yow nan nga mën a dofee noonu. man damaa tàkkaleeg sama sogo xaw ma sax nan la demee affaire bi léegi xaw ma mu demee. nga ne. damaa jëlee kaw. lan moo jëlee kaw. affaire bi man xaw ma sax damaa jëlee kaw man xaw ma sax lu tax ma def loolu. léegi lan la waa léegi lan moo la ci dugal. dara dugalu ma ci xaa ni ma ko bëggee rek looloo tax. ah moo tax nga def ko. moo tax léegi lan moo tax nga nangu oto di def lu bon ba pare ñu lay filmer. waa léegi Pawlish mbay noonu lay def Pawlish mbay gars yi kii amul xel Pawlish mbay mooy def bu nekkee nit vidéo la comme ni mu xëppee soow mi Ouzin Keita noonu la def gel bi def na ko dañuy vidéo vidéo bi su ñun ñaar lay yem comprendre nga léegi aatu vidéo lañ te vidéo baa ngi nii génn na yaa ngi dégg ñu fay nekk di def lu bon di laalante di def yu bon yaa ngi dégg mu léegi nag fi mu toll nii gel bi fi mu toll nii fi mu toll nii ñoom dinañ ci am seen bës léegi nag yow nga def nag sa der du yàqu bloqué sama deret taxala deux gi mënoo fee gaawee noonu ndax vidéo yi bërki démb ngeen ko def nan la fi kattante deux semaines war a gaawee wala dalaa njëkkoon a kat ah non man kay dama lay wax rek nan la fi régal gën a gaawee noonu kon am na fu ngeen jot a jaar avant vidéo yi yow kii kii Pawlish Mbaye rey na ko mais yow xanaa mooy mbokk ah loo sa yaay waxu la dara. ñoom kenn yëgu ko ci woo. ok léegi xam nga laa bëgg tey jii benn affaire laa bu ma jëloon sa vidéo yi nii jox ko ma teg ko nii nii nii fi lay Pawlish Mbaye di laale nii live bi nan la lay def maanaam loolu dina la xaw a tuuse tuuti. dina ma tuuse kay. Ah. léegi lan moo tax xalaatu loolu. dama jum rek Adamo baal yow. tey jii yow bu ma la toppoon tey jii bu ma la toppoon xam nga yow fi ñu jaar bu ma la toppoon c'est que sama xol moo rafet rek mais yow bu ma la toppoon Sénégal buñ la joxatee micro di nga rus génn. ok instant bi ku nekk ak may woo. ak TikTok yi kay dem na fu ne. léegi nag wuyu ma xam nga la laa nga ne lan. ku ko laa non non ma ko si mais dama ne léegi boo jógee fii nooy defati nan ngay mel maanaam bu liy jàllee nan ngay nan ngay comporté woo boo léegi bu la nit waxee ne dama laa bëgg a laal filmé la. loolu kay dootuma ci mel ne amoo xel de da nekk ci internet bi nii rek yow ñaataat nga am. kan waaw nga ne. 17 ans. yow nga la laa bëgg. waaw nga woo Pawlish Mbaye nu mu gën a gaawee parce que yéen ñaare ko seqoon bu duggul nag ma ma publier na gaaw yow lay xaar. Ah. waaw ma woo ko woo ko fexeel ba jot ko fexeel ba jot ko dégg nga. waaw xéewal. daf maa boleke woon de ñu jotee mu boleke ma xoolal de boleke ma ma am vidéo muy neexal di baaral naan ay nii nangam nangam fii lan fi jotee xuloo mu boole ka ma fépp boole ka ma xolal jël jël jël sama kii euh, jël sama jël sama kii euh, jël sama samay vidéo dem jox ko ay dakaar Buzz dem jox ko ay kii nu mu tëddati ay euh, xanaa damay bëgg a dee ay ay momo zapping ñu may dugal yaa ngi dégg mu nekk toog naan ay waaw Adama day dof dof lu nangam nangam day def bu ma ko toppoon katt ndayam léegi su ma ko toppoon léegi léegi dëgg nday fii waaw Pawlish Mbaye nag bu ma ko jotul du baax Pawlish yow la ni xaar dugal yow laay xaar nii maa ngi lay woo xam naa yaa ngi seetaan dugal gaaw dix-sept ñàkk fayda la ñi nga xamante si nii dañ doon commentaire sama commentaire yi naan waaw mise en scène ni fi def nii ni mu fi def naa barki baaba Babacar si kii du lu wax ndeylo booba la ma boleke du lu wax man nag moom moo tax moo tax nekkuma sax di woo Pawlish Mbaye moom laa gën a xiif ba ma ko jàkkaarloo mu leer ma ne ñi ngi koy katt man mu leer ma ma yónnee ko ko mu leer na ma ne kii ndeyloo la kii ñi ngi koy kat du montage la commencé di ma woo di ma neexal mu suma woo daf maa boleke woon ndeyloo daa sensé numéro mais dafa xamul kàppoo rek man ku mës dugg ci man teeral nga waxoon naa leen lii lépp ku mësoon a dugg samay 18 ñëw nga fii xoolal fi mu mujje xoolal tey fi mu mujje xoolal xoolal fi mu mujje tey dafa maa boleke woon fépp fépp la ma boleke efface sama ni numéro su ma koy woo sax du ma ko jot xoolal tey fi mu mujje moo tax yàlla yàllaa man yow lan la Pawlish may wax. neen neen mi ñu lay woo léegi. nagaaw nagaaw ni mu def Ouzin Keita te xëpp ko soow mi affaire yooyu muy def ñu ëpp lay def dof la wérul non non wérul de barki alxuraan ak gisoo Ouzin Keita ñoom ñaar seen dil bi Ouzin Keita gis nga ni ko def dafa jël meew mi fekk ko mu toog mu xëpp ko ko ak lu mu mënti doon loolu yëfi dof la. loolu yëfu ko ëppal la ak dof parce que meew kenn du ko xëpp nit wala coow man sama xarit la dama koy wax dëgg ndeyloo dañ ko utiliser moom tim la de waaye dafa dof dañ koo utiliser katt ko filmer ko pour ne ko vidéo bi day ñam ci ñun ñu ne xam naa danañ dof dof lu ba jaarale ko ci aadama mu doon bës man tamit ma teggi Pawlish maa leen gënati ko yónnee ko ki ma joteel ndax moom moo fi génnoon ne ma nangam xam ne tiit na nag ndax xam na ne maa ngi vidéo gis ngeen ko lépp preuve la ndax dama ko indi ci live bi te mooy wax ngeen di dégg xam nga lan mooy lu ma inventé mooy loo xamante si nii damay toog wax ko te amul dama ko envoyé vidéo indi ko ci live bi mu def mu def comme ñëpp sinon ma dëgg nday vidéo yi aw ma ku may bàyyi damaa tëb Pawlish Mbaye ndax man ak moom a jote moom laa gën a xiif man day loo laa xiif xiif ma Pawlish de moom laa xiif problème la ñu am bu rëy waaw kay loolay wax bi temps baa ngi dem allo. oui allo. nu mu demee yaa si jàmm Pawlish. ça va tranquille Adamo. ça va ngi si jàmm. maa maa si jàmm maa si jàmm bu baax a baax. ok lépp cool. Euh, euh, maanaam li jot a xew tey moom laa lay doyee parce que vidéo bi joxuma ñëwuma pour wax la ci dara. Ah, la aussi. waaw ah, léegi da nga koy baal dan nga koy da nga koy baal ku ni baal surtout ah. non yow amoo xool quoi barki yàlla yow loo gis pour yow mbalag la. yow yaa ngi def li ngay def yow da ngaa ndax booy bi ne ko dañ koy def vidéo bi su ñun ñaar lan jëm lan moo tax yemul si yéen ñaar. Ado man dama xaar nit kese laa. dama ne lu tax vidéo bi yemul si yéen ñaar. waaw xaaral plaisir ñëpp ko bëgg. waaw mais waxuma lool de maanaam li ma lay wax ak li ngay tontu bokkul. waaw da nga may maa woo téléphone. da ngay wax ak dëgg la waa man waaw man samay vidéo sax ay génn ni ma. waaw man Sarr la waaw Sarr il faut di ko déjà. dama laa bëgg a dimbali nga xam ma. mala doo muus du ma xar. Ah. su ma su ma gisee lu ma neex dama koy def déjà. waaw damaa gis li neex dama def ko moom ngay xaw a suturaal tuuti parce que jigéen la. waaw waaw mais non non man li metti du loolu man ba tey déggoo ma wax la ci dara mais li ma metti mooy lan moo tax ngeen koy vidéo ak vidéo vidéo bi. lan moo tax mu di ko kii ba mu yegg si man kooku tamit. mais mais mais euh, en fait euh, rapport ñëpp a koy def. waaw loolu dëgg la mais euh, vidéo bi nag. vidéo bi nag. ah vidéo bi je vais pas les couilles xam nga ko génne mais wuñu la. jéggalal ndeyloo rek daal jéggalal ndeyloo. dégg ngeen loolu looloo sa comportement. ah eh oui bah oui ah. moom bëggee na ma ko bëggee na ma ko topp ba mu def. lii dof la ndeysaan. non du dof sax euh, dof moom ci saat moom amul dofa. non da ngaa utiliser boy bi boy Pawlish billahi. dama insomnie. waaw insomnie euh, waaw. ok dama bu nga ñu waxtaan. ah. waaw bu dee bëgg nga ñu waxtaan. suba ñu live ci ñu waxtaan moo xam ne lépp lu mu demee mais pas tey instant bii parce que sama xol neexul ñëpp a ngi may wax déjà téléphone bu dee bëgg nga ñu waxtaan suba ñu waxtaan ci incha allah. minuit. suba mi ngi ñu waxtaan ci mais. baax na dee ndeysaan kat doomu jàmmoon ne dafa insomnie di wax nag di baaral ndeyloo dof la fi mu toll nii xoolal Pawlish da koo utiliser katt ko def moom bës comprendre nga léegi daa di daa daa daa di jël vidéo bi def ko bës nag ndeyloo bu ko deewoo sax du wuyu du ko faale. dof la wérul xel mi dafa wax mi ngi naan damaa insomnie mënumaa wax xam na ne coow li bari na day dof dof lu rek. rus rek ko jàpp parce que kat ku am 17 ans di wax naan damaa semi damaa lii suba bu ma ko woowee jotuma leen kat nday fi de wooyu jox ko kocc partage sa ndeyam doomu xaj taamu waan ndeyloo allo Daylo. waaw Pawlish dugg na jot naa ko léegi benn affaire lan wax muy suba suba bu duggee dina leeral lépp ni mu demee moom bu leeralul ni mu demee nag ma partagé vidéo yu dugal daal di jox ko ci mu dugal leer na. am na a pire lool moom bu deful léegi yow maanaam Daylo da ngaa da nelaw barki yàlla mi ngi la utiliser ba pare toog foofu naan ay dafa insomnie mënut a dugg naa la suturaal jigéen nga Daylo lu tax ngay def loolu. non non yow yaa gën a tey na Pawlish may bës lay créer bës lay créer bu joxee nit ne la na la filmer mu defanteeg yow lu bon vidéo bi si yéen ñaar lay du fa yem xam nga Pawlish gis nga ni mu def Ouzin Gueye di xëpp ko soow mi dangaa nelaw waroo woon a def loolu wuyu ma yaa may dégg ndeyloo suba moom bu waxul lu leer après ñu ñu xool nuñ ko négocier dégg nga incha allah ci minuit incha allah xéewal kii dafa dof kii boo déggee ni nga xam billahi wallahi wallahi wa taalaahi ñi nga xamante ni dañoo yaakaar ne lii ay kafla lii du ay kaf de ndeyloo mii du ma wax ak moom billahi ba ma jotee vidéo bi laa ko yónnee Pawlish Mbaye da koo nax ne ko man ak yow dañuy kattante vidéo bi yem si ñun ñaar aatu moo leen doon vidéo aatu nag xam na ne sama diggante ak ndeyloo li nu jotee yaa ngi dégg mu yónnee ma fi waxul waxul bëgguloon sax ma tudd turam mais comme que man damaa direct ma tudd ko musuma tudd yaa ngi dégg léegi mu mu mu ne ko vidéo bi suñu naan lay jëm léegi moom xam nga bësam moom day ëpp kattante nit dugal kii moo ñàkk bopp kii kii moo ñàkk bopp kii moo feebar boo nekkee boo nekkee di di afi na yenn yoo xam ne nii bës jëru ko fi mu doon nii xoolal Pawlish Mbaye instant bii nii dama insoumis ah mënuma dugg ci live ah dani dani dof la dañ ko utiliser wérul dan ko maanaam dañ ko utiliser wérul dof la dina leer de lii dina leer wala ma kat nday vidéo yi ah wala nii leer na leer wala ma dëgg nday vidéo yëpp